asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgu bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Kole ñu seeti boppu xibaar yi. banxaas bi seeti wàllu sànnib kàtta bi ci altine bi ñoom ñoo génnee xibaar di xamal askan wi ne sànni kàttab néegu député bi nañ ko def naka juróom-ñeenti fan ci weerub april atub 2022 bi ñu nekk muy tombee naka bésub samedi. Kerewan Area Council ci altina bi ñoom ñoo teewlu ci kanamu comité bu néegu député bi taxawal pour ñu saytu lu aju ci doxalinu nguur gu ndaw gi matuwaay bi ñu jël ko rek pour gis ne gëstu nañ seenu doxalinub liggéey mbootaay boo xam ne nag ñoo nekk di saytu nit ñoo xam ne nag dañu am jafe-jafe ci wàllub déggin ak it wàll gis-gis ñëm nag si jamono ji ñoom ñoo nekk nag di am ab njàngale jaarale ko seen diggante ak waajur yi matuwaay bi nag ñu jël ko pour gis na rek jàppale nañ waajur yi ngir ñu mën a jokkalanteeg seen xale yi. mbokk yi looloo doonoon bopp xibaar yi ñu taaxirlu bu ñu dellu see yaatal xibaar yi fi jot a am ci bëccëgub tey bi banqaas bi saytu wàllub sànnib kàtta gi ñoom ci altine bi ñoo génnee xibaar di xamala askan wi lu aju nag ci sànni kàrtaab député bi si jamono ji nag ñu ne date bi jàpp nañ ko muy tombé nag bésub samedi war a xew nag juróom-ñeenti fan ci weeru april atum 2022 bi ñu nekk bataaxal goo xam ne nag génnee nañ ko bu bàyyee ko ci banxaas bi seetu wàllub sànni kàrta gi ñu génne na xamee si Independent Electoral Commission muy banxaasub IEC sibi ñoom wax nañ ne nag candidat yoo xam ne nag bugg nañoo bokk si jongante sànni kàrtaab néegub député bi ñoom nag mun nañoo yóbbu nag si nomination bi bàyyee kon nag juróomi fan si weerub maaj dem ba si fukki fan ak ñett si weerub maaj atib 2022 bi ñu nekk ñu ubbi seenu bunt bi nag juróom-ñetti waxtu ci suba ndar keppal ko ñeenti waxtu ci bëccëg AIC ñoom wax nañ ne naka nomination paper yi muy maanaam paper yoo xam ne naka yooyu la waay di bindi pour wane yéenem naka ngir mun a bokk ci nomination bi nag dinañ ko amee naka ci seen office bi ñeenti fan ci weeru février atum 2022 képp ku ko soxla naka mun ngaa dem ci seen office nga jël naka nomination paper bi election house bi ba tey rek ñoom ñu ngi wax ne campagne bi naka jàpp nañ date bi nañ ko commencé fukki fan ak juróom si weeru mars dem ba si juróom-ñaari fan ci weeru avril si atum 2022 ba tey bi ñu continuer di wax ni seen returning officer yi ñoom nag si jamono ji tasaare nañ leen ci tund yi nekk si biir réew mi ku ñu naan Souleymane Diouf moom la ñu teg sa Banjul Joseph Koli nekkal leen sa Kanifing Robert Anthony Seka nekkal leen sa Brikama Essa Balde nekkal leen sa Kerewan Lamine Jee Jaadama nekkal leen sa Mansa Konko Amadou taal nekkal leen sa Janjanbureh Lamine Thiam nekkal leen sa Basseng ba tey banxaasub AIC bi di banxaas bi seet wàllub sànni kàtt gi ñu ne rek ñu ngi xamal askan wi képp koo xam ne rek bëgg ngaa bokk ci seen liggéey bi muy maanaam nekk nag ab assistant returning officer wala nga nekk presiding officer wala nga bëgg a nekk assistant presiding officer wala nga bëgg nekk ci seen polling station yi wala seen polling officers yi mun ngaa bind nag application mun nga koo yóbbu ci seen bureau bi fanweeri fan ak benn si weeru janvier si at bi ñu nekk muy tombé nag ci altine bi mbokk yi li doonoon bataaxal bi waye ko ci banqaas bi se wàllub sànnib kàtta gi mu doonoon xibaar gu ñoo jottalil askan wi mbokk yi ñu continuer xibaar yi Kerewan Area Council ci altine bi ñoom ñoo teewlu ci kanamu comité bu néegu député bi tax taxawal pour ñu saytu lu aju ci doxalinu nguur gu ndaw gi ak seen wàllub liggéey bi matuwaay bi nag jël nañ ko pour gis rek gestuwaat nañ alu aju nag ci mbirub liggéeyu nguur gu ndaw gi ci biir réew mi surtout ma nag ci at yi ñu passé audit report bi mi maanaam lu aju ci kayit yoo xam ne nag dañ koy bindi jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi am na ci yenn banqaas yoo xam ne nag seen kayit yooyu dañoo réer ñenn ñi nag mat nataluñ seen kayit yi ginnaaw ba ñu teewloo naka ci kanamu comité bi te si jamono ji naka ñu ngi wax ne ci yeneen nguur gu ndaw gi seen banqaas yi luy toll naka ci ay millions ci si loolu moo jot a riiraangum Kerewan Area Council mu ngi nekkee sa North Bank Region ñoom ci altine bi ñoo teewlu pour wane naka kayit yoo xam ne ñu ngi bindi mu aju naka ci seen wàllu liggéey bi ci at yi nga xam ne naka passé nañ ko Kerewan Area Council naka bu ñu gestoo bokku na naka ci nguur gu ndaw gi te naka seen liggéey bi comité bi naka lu bi may na ko pour mu gestu naka lu aju ci seen doxalin liggéey bi ak seen mbirub koppar gi ñi nga xam ne naka ñoo fa teewlu si jamono ji naka ñu ngi wecci wante kàddu jëmale ko naka lu aju ci seen wàllu liggéey bi Bakary Tara Wale moom moo fa toogaloon audit bi mu doon naka seenub directeur bi Kerewan Area Council seen finance director bi moom moo fa teewlu di wuyoo naka si Abdoulaye Ka moom fa teewlu naka pour tontu ci kàddu goo xam ne naka Bakary Tara Wale dina ko ko jox. audit director bi muy wuyoo si Bakary Tarawale ba mu doon gaaral kàddoom mu ne comité bi nag dëggal na ne am na yenn kayit yoo xam ne nag ñëwul ci seenub kanam mu ne nag Kerewan Area Council si atum 2018 seen banque déposit bi nag jotoñ ko mu ne te loolu naka doon na mbir boo xam ne nag dafa réer. mu ne Kerewan Area Council seeni banque deposit maanaam seeni kayiti banque yi si atu 2018 bi boobu naka comité bi jota guñ ko mu ne waaye naka bu atu 2019 bi boobu naka yóbbu nañ ko maanaam jot nañ ko def nañ ci ab gestu tamit gis nañ ne am na ci yenn yoo xam ne naka dafa réer kansulub kerewaan bi ku leen fa teewal moom ba mu tontu naka ci mbir yooyu mu ne naka si jamono ji maanaam si seen wàllub liggéey bi tànnoon nañ naka li toll si fukk ak juróom-ñaari staff maanaam liggéeykat si atub 2018 ak atub 2019 te ñi naka seen kayit yi binduñ ko ba tey rek mu continué di wax ne am na ci naka yenn luuma yoo xam ne naka def nañ ko sax farafeñe ak ndungu kebe te naka luuma yooyu noonu binduñ naka kayit yooyu mu continué di wax ne naka ëmpale wuñ ne mu ko di wax ne luuma naka ndaje la goo xam ne nit ñi dañ fa dee fayee lempo te naka koppar gu fa bayee koo def dee takku torop mu ne waaye naka am na ci yenn kayit yoo xam ne naka jotuñu ko ba tey rek mu continue di wax ne luuma place su njaay goo xam ne naka def dee dajale ñu bari bu ñëwee naka si North Bank Region ba tey rek mu continuer di wax ne kayit yoo xam ne naka jot nañ ko yóbbu gis nañ am na si yenn luuma yoo xam ne naka duñ fa dee yóbbu ndox council bi nag ñoom dinañ continuer def ab gestu jëmale ko nag ci doxalinu nguur gu ndaw gi te nag comité bi doon nañ ñoo xam ne nag néegu député baa leen taxawal pour nag ñu gestu lu aju nag ci wàllub liggéey boobu si jamono ji nag ndar keppal nañ gestu goo xam ne nag boobu lañ nekk di def jëmale ko nag ci liggéeyub Kerewan Area Council des na nag ci council bi maanaam ci comité bi pour ñoom neen ñu waxtaanee xool naka ndax seen kayit yi nañ ko nangu ab banxaas bu ñu naan gado mu doon banxaas boo xam ne nag ñoo fi wal ñoo xam ne nag dañoo am jafe-jafe ci wàllu déggin ak it waxin ñoom nag ñoom ñoo am ab boo xam ne nag moo nekk di dox ci seen place boobu si projet bi nag ñu ngi jàngal waajur yi ci nu ñoo mën a waxtaanee ak seen doom yoo xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu déggin ak it wàllu waxin pour gis nag yombal nañ leen seen mbirub waxtaan. waajur yi nag ñoom si jamono ji nag ñu ngi jàngalu ñu naan sign language mais maanaam mandarga goo xam ne nag dañ koy mën a waxtaanee seeni doom yoo xam ne nag dañoo télé projet bi nag ñu ngi ko tuddee moom daat do you hear me muy yaay papa ndax dégg nga ma matuwaay bi nag ñu jël ko rek pour gis ne jàppale nañ waajur yi ngir ñu mën a jokkalanteeg seen doom yi te nag ñu ko dooleel mooy banxas boo xam ne nag mu ngi nekk sa Belgium ñu see jàppale nag xale yoo xam ne dañu toll nag si juróom at dem si fukki at ak ñaar seeni projet yi nag ñu ngi ko yóbbu ci dëkk yoo xam ne nag ñu ngi dooleel seen bopp matuwaay bi ñu jël ko rek pour jàppale xale yi ngir gis ne nañ jokkalante ak seen waajur yi ak itamit jokkoo ñi nga xam ne nag ñooy seen jàngalekat yi. Mariama Diop Modou Ba ak Aïssatou Diop ñii ñëpp doon ñoo xam ne nag ñu ngi bokk si njàng mi ñoom ñëpp nag wane nañ seen mbégte ak seen kontante ndax ñu ne si jamono ji nag nu ñoo waxtaanee ak seen doom yi yomb na te nag bu njëkk ba dañ ko daan jànkuwanteel jafe-jafe pour gis nag dégg nañ seen doom yi lu ñoo wax mu ne waaye nag projet bi isil na leen ab yokkute ndax si jamono ji nag nañ bugg di mun a waxtaan ak seen doom yi. Mariama Diop moom ci làmmiñam mu ne moom naka am na mbégte ak kontante ci projet buñ leen isil mu ne ndax moom naka jàngul waaye naka programme bi mu ngi koo jàppale pour mu mun a waxtaan ak doomam bi bu ñëwee naka ci kaalaam ak angale bi ak itamit ci sign language bi muy manda mandarga bi mu ne mbokka mi naka si jamono ci moom it naka mu ngi leen di jàppale pour gis naka nañ mun a wax ak seenu doom bi mu ne surtout ma yaayam moom it mu ngi jàngee ci moom naka pour gis ne dina mun a waxtaan ak sitam bi ci kër gi Modou Ba moom mu bokk nag si waajur yi nekk si njàng mi ginnaaw doon gaaral kàddoom mu ne bu njëkk bi nag daf doon jànkuwanteel jafe-jafe trop pour waxtaan ak doomam bi mu ne waaye nag sant yàlla léegi xale bi nag bu defee mandarga googu daf dee mën a xam nag lu xale bi nekk di wax mu ne programme bi nag jàppale na ko trop ndax si jamono ji moom daf daan bugg di waxtaan ak doomam bi saa yu nekk waaye du ko daan mun ndax mënutoon nag mandarga bi mu ne waaye si jamono ji mun na ko nag te mu ngi cee sant yàlla mu ngi jaajëfal nag ñi nga xam ne ñoo nekk di doxal projet bu ñu sukkandekoo ci banqaas bi saytu wàllu wérgu yaram bi ci biir réewu Gàmbi bi xayma goo xam ne naka génnee nañ ko wax nañ ne naka li war a toll si juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ci million ci xaalis dalasi loolu naka la ñu dugal ci mbiru wérgu yaram bi pour gis naka dooleel nañ askan wi pour gis naka dooleel nañ askan wi bu ñëwee naka ci réew yoo xam na ñu ngi dooleel seen bopp ci téeméer bi li war a toll naka si juróom fukk ak juróom ñaar ñoom ñoo dugal seen loxo naka ci projet bi nii projet bu ñu naan moom di yo xiyami muy yaay papa ndax dégg nga ma doon na projet boo xam ne naka ñu ne matuwaay la pour jàppale naka waajur yi ngir ñoom it naka ñuy mën a jàppale seen doom yoo xam ne naka ay télé leen ci biir kër yi ñu ne tamit matuwaay la goo xam ne naka pour gis ne xale yi naka nañ mën a ubbeeku ci biir kër gi mën a waxtaan seen waajur yi pour gis naka ñu mu neen déggante nañ si jamono ji nag banxaasu gado bi ñu ngi laajte bu fekkee ne nag am nga ab doom boo xam ne nag dafa am jafe-jafe ci wàllub déggin wala ci wàllu waxin wala sax nga xam njaboot joo xam ne nag ñu ngi ko amee mun nga leen a yóbbu nag pour ñu bokk si projet bii nii pour am loolu nag yomb na danga leen a ko lekk ci nomba bii di 351 8505 mbokk yi ba tey rek ci xibaar yi ab mbootaay bu toog sa Canada ñoo jaarale seen loxo ci mbootaay bu ñu naan Khadija Foundation ñi yóbbu nag ndimbale si jigéen yu nekkee sa Brikama Jidda jigéen ñi nag boxool bi dina leen jàppale pour doole leen ci seenu mbirub liggéey bi ginnaaw ba ñu rombee nag ay at yoo xam ne ñu ngi jànkuwanteel jafe-jafe pour am ndox mu set jigéen yoo xam ne naka ñoo nekk sa ji dañu tuddee seen bopp nag women for peace and development muy jigéen yoo xam ne nag ñooy dooleel jàmm ak yokkute sa jidda foofu ñoom am nañ nag projet ko booxool ci seen dëkku bi matuwaay bi nag gis nañ ne mbir la boo xam ne naka daf leen di wàññil jafe-jafe gu ñoo jànkuwanteel wala sax jeexal ko tamit jàppale leen nag lu aju ci ndox mu set Mohamed F Jabi moom mu doon vice chancellor si mbootaay yi Khadija Foundation bi moom wax na ne naka bi bañ ko sampee naka ci dëkk bi ñoom naka gis nañ si mbégte ak kontante tamit gis nañ ci naka mbirum yokkute ndax lii naka na leen wàññil jafe-jafe goo xam ne naka ñu ngi koo jànkuwanteel ci mbirum ndox mu ne naka bu ñëwee ci fanweeri minute daanaka naka loolu la ñoo xaar duñ dee am ndox mu ne yenn saa naka da ngaa gis seen jigéen ñi ñu jóg naka ñeenti waxtu ci suba pour dem naka uuti ndox mu ne waaye naka booxal bi dina leen jàppale mu ne looloo tax naka ka Khadija Foundation ñu lëkkaloo ak seen àndandoo bi Fahad Al Anafi ñu indi naka ndimbal bu mel nii matuwaay bi naka ñu ne ñoom ñu ngi ci wane seen mbégte ak kontante ndax tey jii naka booxal bi dina jàppale naka jigéen ñoo xam ne ñu ngi yàggaa joytu naka depuis si atum 2000 2016 Bakary Mané moom mu doon naka député imam ci dëkk boobu mu gaaral kàddoom di jaajëfal naka mbootaay yi ci dimbal goo xam ne naka indi na ko ci seen dëkk bi ne naka boo xool yii nii na leen indi naka ab wéccite ci seen wàllub dund ndax naka ndox solo gu mu am naka ci doomi aadama ñëpp xam nañ ko. Bintu Touré moom mu doon secretary ci mbootaayu Jidda Women for Peace and Development bi ginnaaw doon gaaral kàddu wax na naka jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ko daal jànkuwanteel mu ne naka ndox mi dangaa gis ne naka juróom-benn waxtu ci suba la moo ñëw mu ne naka ci waxtu googu ngay mën a eewu naka pour dem rooti boo rootutee guddi naka ngay mën a amaan ndox mu ne waaye naka si jamono ji boo xool gi naka dina leen jàppale ndax saa yum leen neexee la ñoo mën a dem rooti tamit naka saa yuñ demee rooti nañ am ndox ñu ne naka mu ngi jaajëfal nit ñi nga xam ne nag ñoo indi ndimbal gi di ñaan yàlla nag mu fayal leen pour mu fay nag ñi nga xam ne ñooy sponsors yi. Aminata Dabo moom mu doon nag ku jiite mbootaay yu jigéen ñi Sabrikama ji dem ne mu ngi jaajëfal mbootaay bi ci luñ leen dooleel nag ci yére ak yi mu ne mu ngi ñaan yàlla nag pour mu dooleel leen mu ne ci turub aji dem gu tax nag ñu am boohol bi mu ngi ñaan yàlla nag yàlla jégal ko ay bàkkaaram xare ko nag ci arjana yi gën a kawe. mbootaay yu jigéen ñi nag ñu ngi koo taxawaloon si atum 2016 matuwaay bi nag ñu jël ko pour gis ne rek ñoom jigéen ñi neen dajaloo nañ gis ne nag liggéey nañ ci mbir bu yokkute seen dëkk bi. Khadija Foundation doon na mbootaay boo xam ne nag si dëkk bi UK bi lañ ko registré waaye nag ci biir réewu Gambie bi la nekk di doxee matuwaay bi nag ñu jël ko rek pour gis ne doole nañ nag ñi nga xam ne ñooy néew di doole ñu lëkkaloo si ak seen àndandoo yu nekk sa Canada ci at yi ñu passé nag mbootaay bi jàppale na nag ay néew di doole yu bari ci biir réew bi surtout ma nag jigéen ñoo xam ne nag ñu ngi soxla woon mbirub juma ak yére yoo xam ne nag dañ koy jëfandikoo pour gis nag jaamu nañ ci yàlla for Peace and Development du mbootaay bi ñoom naka ñu ne ñu ngi rafetlu ndimbal goo xam ne naka am nañ ko ñu ne si jamono ji naka jafe-jafe guñ doon am naka ci wàllu ndox mi jafe-jafe googu naka génn nañ ci ñu see sant yàlla bu ñëwee ci biir réewu Gambie bi ndaw ñu bari naka dañ de nekk ci garage bi pour gisee naka jàng nañ moto ñu ko commencé naka ci apprenti ya am na si ñoo xam ne naka dañ dee dem ay at bala ñu amee seen moto bopp wala sax balaa ñu leen daa jox pour naka ñu drive ci matuwaay googu tax na naka suñu ndaw bi génn pour waxtaan ak ñenn ñoo xam ne naka ay apprenti leen ak seenu boos xool naka jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel si seen njàngu métier gi ak tamit yokkute yoo xam ne naka ñu ngi ko cee am buñ ne apprenti naka ñu ngi wax ndaw goo xam ne naka moo nekk di jàng métier lu aju naka ci wàllu dawal moto am na si ñenn ñoo xam ne naka boo leen fekkee si garage bi lu ñoo jël rek mooy jël paas ci biir moto yi dañ dee dem naka ay at balaa ñu leen a jox moto pour ñu drive matuwaay googu naka tax na si jamono ji naka ndaw ñu bari ñu ngi alfodi ci fi nga xam ne naka mooy si garage gi waaye tamit bu ñu gestool ci mbiru métier gi yokkute goo xam ne naka ndaw ñaa ngi ko ci am doon na mbir boo xam ne naka ñu ngi koo rafetlu Moustapha sane doon ku ñu njëkk a waxtaanal moom mu doon naka dawalkati moto wax nañu naka lu mu dund ginnaaw ba mu nekkee woon naka ab apprenti mu ne liggéeyu métier gi dafa ànd ak dal tey tamit naka ànd ak fas jom mu ne naka bu fekkee ne yaa ngi si fas jom yàlla naka mun na laa jàppale pour nga am sa moto bopp wala nga doon naka ab driver mu ne moom naka apprenti la woon ay at ci ginnaaw mu ne naka liggéey bi naka yombul waaye naka sant yàlla tey am na taxi boppam mu see dundal boppam ak i njabootam mu ne tamit suma rakk bu góor bi maa ngi ko jàppale naka dugal ko ci mbirub apprenti yaa bi pour gis ne naka moom it ëllëg doon na ab driver Ibrahima Diallo moom mu doon ab apprenti si Brikama garage bi ginnaaw doon gaaral kaddoom moom wax na ne naka daf dee dem ak ñëw diggante Brikama ak Serekunda mu ne waaye naka mbirum apprenti ya liggéey bu noobu la mu ne moom naka mu ngi see jàppandeku di jàppale naka waajuram mi ci biir réew mi Diallo mu ne mu ngi ñaax groupe Gambie bi ak banxaasu Gambia Transport Union bi ñu doon banxaas bi seetu naka lu aju ci wàllub yoon yi mu ne naka mu ngi leen di ñaax ndimbal pour gis naka jàppale nañ leen ubbil leen naka ay bunt ngir ñu mën a jàngaloo aju ci wàllub dawal moto te fekk naka du ñu def ay ati at ci garage bi mu ne ñoom naka dañ dee am jafe-jafe yu bare bu ñëwee naka seenu diggante ak seenu bos mu ne waaye naka sant di yàlla dañ def fas jom rek a continuer noobul liggéey boo xam ne naka boobu lañ nekk di def mu ne yenn jafe-jafe yoo xam ne naka ñu ngi ko jànkuwanteel yenn saay sax dañ dee bugg a bàyyi waaye naka boo xalaatee mbirub ëllëg ak yokkute goo cee am danga si dee gën a mu ne moom ba mu doon apprenti ay at la ci ginnaaw te si jamono ji nag mu ngi see am ab yokkute ndax mu ngi see mun a dundal boppam aki i waajuram yi mu ne ndax si jamono ji nag man maa de fayal suma rakki school fees tamit naka di jàppale suma waajur yi lu aju si wàllu dundu Kelefa Keita moom mu doon naka chef de garage si Brikama garage bi ak Serekunda ginnaaw doon gaaral kaddo mu ne moom naka mbirum métier bi ni indil na ko ab wéccite torop si wàllub dundam mu continué di wax ne naka moom mu ngi ñaax ndaw ñi pour naka ñu yóbbu ko ci kanam mu ne naka apprenti la woon balaa mu doon doon ab driver te naka am na ci at yu bari si garage bi mu ne si jamono ji mu ngi ubbil buntu ndaw ñi pour ñoom it naka ñu jàppande ko si gis ne naka jàng nañ lu aju ci wàllub dawalub moto mu ne boo ñëwee fii bu bés bi jeexee naka di nga gis ne boo delluwaatee sa kër naka di nga yóbbuwaale dara pour jàppale naka sa waajur yi mu ne tamit lii dina jàppale ndaw ñi pour ñu bàyyi naka sàcc gu ñu nekkee ci dëkk bi. Wiyee Diop moom mu doon driver sa Bakaw garage bi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax nañu nag jafe-jafe yoo xam ne jànkuwanteel na ko si jamono ji mu nekkee apprenti mu ne moom nag apprenti yaa bi def na ko nag ay at mu ne waaye nag moom doonoon na koo xam ne daf doon liggéey ak nijaayam mu ne nijaayam nag moo ko jàngal nu ñoo mu ne nag lijaayam googu liggéey naa moom lu toll nag si juróom-ñetti at mu ne tey nag maa ngi doon driver te am naa si nag fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom laa def nag apprenti yaa daanaka ñetti at yi naka laa dawal sama bopp mu ne si jamono ji naka maa ngi liggéey te naka maa ngi amal sama bopp mu ne man naka dama de daw diggante fii dem ba sooma farafeñe wala dem naka ay baara mu ne te lii naka indil na ma ab yokkute bu ñu sukkandekoo ci chef de garage bu nekk sa wax ne ne naka garage yëpp ñu ngi ko ubbi pour gis ne naka ndaw ñi ñëw nañ jàng moto mu ne lii naka yoon la goo xam ne dina tax naka ndaw ñi ñu am fu ñu téye pour gis ne nañ dimbale seen bopp ak itamit dimbale seen waajur mu ne mu ngi oon naka nguurub Gambia pour naka ñu jàppale leen defaraatal leen naka seen garage yi ak yoon yi pour gis naka wàññi nañ accident yo xam ne naka ñoo dee am ci yoon yi mbokk yi mu ngi noonu xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen di doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeendoo jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam